chers internautes yu Tab Info TV Sénégal dal leen jàmm ci li gën a fas ci wàllum actualité bi dañu koy doore ak lu soxal arrestation wu rappeur activiste bi la di Mor gay ñu gën koo xam ci Nit Dof moom nag teg nañu ko loxo tey jii kon ci àllarba ji ñi ko def moo di police bu sûreté urbaine la tax ñu teg ko loxo nee nañu kon bokk na ci live bi nga xamante ni dafa na ko ci page Facebook am ni ki semaine bi la ñuy génn waaye nag mu ñu sukkandikoo ci ab avocat am di maître Khoureyssi Ba moo di rappeur bi la di Nit Dof nag ba ñu ko tegee loxo déglu nañu ko ba noppi topé appel à l'instruction outrage à un magistrat appel à la violence appel à la désobéissance aux institutions, menace de mort à l'encontre des autorités judiciaires et injure publique moom Mortalla Gueye di nit dof nak jamono ji kon placé nañ ko en garde à vue lénen lo xamné kon fees na lool ci walum actualité bi moo livre bi nga xamné ni kon taskatu xibaar bi le di Cheikh yirim Seck moko bind tuddé ko Macky Sall face à l'histoire livre bobé rek taskatu xibaar bi di Cheikh yirim Seck dafa def ay révélation yu garaaw rawatina lu jëm ci ki nga xamante ni kon moom moo dossier Sonko ak Adji Sarr Cheikh yirim Seck di xamné na sax lu titre de ce Sweet Beauté bi Ousmane Sonko tudd nañu ko ci mbir yi ñu mel moo ko jiitu woon mu ne ca jamono ji nga xam ne ñu ngi doon waajal élection présidentielle yu atam li ñu mel nag naqari na lool ki nga xam ne kon moom moo di Ousmane Sonko ba tax mu sàkku sax ci nga xam ne kon ñoom ñoo di ay avocat ñu bind ab plainte jébal ko ki nga xam ne kon moom moo di procureur ndax Cheikh Yérim Seck daf ko sosal ci biir livre bi koo xam ne itam jàpp nañ ni ko sosal ci biir livre bi ba tax moom itam mu bind lu ab Cheikh Yérim Seck moo di capitaine Touré moom nag euh, moo di ne dafa doon jël ay secret ay documents di ko envoyé ki nga xamante ni kon moom moo di Ousmane Sonko ba lu da ko doon def loolu moo tax kon ñu daal di koy dàq moom ki nga xamante ni kon moom moo di capitaine Touré loolu la Cheikh Yérim Seck daal di wax waaye nag capitaine Touré nag moom nee na fas yéene naa porte plainte ki nga xam ne kon moo di taskatu xibaar bi la di Cheikh Yérim Seck loolu nag moom la ñu fas yéene def ni xaar ba xam fan la wanant di mujjee ki gëtëm mbokk yi waleen di ñu topp ci biir Topp Info TV Sénégal li gën a fës ci wàllum actualité bi daañu ci dellusiwaat nu mu gën a yaatoo jaa jëf